asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi topp seen chaîne Badru TV tey moo di talaata tombeeg juróom ñaareelu guddi ci koor gi seen naafila tey juróom benn rakk la rakk wu ci ne da jàng fatiha benn yoon ak qul ya ayyuhal kaafiruun ba mu yegg juróom ñaari yoon nga teg ci suratul ixlaas moo di qul walla ahad ba mu yegg juróom ñaari yoon kon lii ràkk bu ci nekk lii ngay jàng mu nekk juróom benn ràkka yal nañu yàlla ma ñu tawfiq ak kattan guñ ko jëfee te mu nangul ñu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu